alhamdulillahi alkarimi silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan bismillahi bismillahi wa ila billah mbokk yi topp seen ci internet bi 24actu baax di ànd yéen saa su nekk rek si moom émission bi ñu tuddee euh, gëstu diine bi gëstu diine bi nekk nekk émission boo xam ne kenn duñ leen ko présenté ci biir 24 ak yi ñu koy baaxoo di ànd yéen saa su nekk waaye nag di solo ngir di leen ci yaa di ko yaatalal askan bi ñi nga xamante ne xamuñu ko woon ñu xamee ci waaye ñi nga xamante ne ñu doon leen doon leen ci euh, tey nag ñu dalal gan mag gan yaakaar naa kenn duñ ci biir 24 ak yi di suñu gan imaamu Cheikh Sall euh, di président de l' association des imams et arabes de Touba waaye xamante ne ci borom xam-xam bu ñëpp ràññee tey muy suñu gan biir gëstu diine ji laata loolu ñu bàyyi suñu gan mu nuyu ak ñi koy nga xam ne ñu ko siiru ci si biir Dakaractu alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadil makin wa ala alihi wa ashabihi sawi ridwan wa tamkin gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal sëriñ Mouhamadul Muntaxa yàlla may ko kattan ak wér ba li mu yéene ci liggéeyal islam ak ak jàmm di nuyu bu baax euh, waa 24 actu ak ma mboolem ñi nga xam ne ñu ngi fi liggéeyee waaye di nuyu bu baax yow soxna Astou Sylla nga nekk ci sud bi di ci liggéey islam di ci liggéeyal diine waaye liggéey bu rafet bu yaatu ñu ngi lay nuyu bu baax. rawatina nga euh, mu nekk loo xam ne lu am solo la hmm, ndax jullit bu nekk war nga koo xam euh, ndax boo demee ci alquran yàlla dafay wax ya ayuha alladina amanu iza nudiya li salaati min yawmi aljumaa fashaw ila sikrillah wa zarul bay'a zalikum xayrun lakum Euh, mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla akub yónnenteem su ngeen déggatee ñu nodd na ngeen bàyyi lépp lu ngeen jàppoon jubali ca jàkka ja wala jumaa ja bàyyi leen liggéey bi bàyyi leen njaay mi ak lépp lu waaye doon def rek da nga ko war bàyyi mu ne loolu bu ngeen ko defee mooy li gën ci yéen su ngeen jullee ba sëlmal fay saa xudeeti salaat fantasiru la wax looloo tax nga gis ci jàkka léeg-léeg ñu ne asalaamaaleykum rek am ñu jóg aaya boobu lañuy jëfandikoo bëri rek dem ndax li nga war a def ci baaxiyaat saalihaat bu la neexee defee ko ci yoon wi loolu nag mu nekk loo xam ne aaya boobu rek mu tënk mbooleem luy jullit aljumuati euh, nga wax ne lan mooy ajuma ji ajuma dañ ne war na képp koo xam ne ab jullit nga euh, nekk as gor waaye nga defee ko ci mbooloo ma mooy te ca jàkka ja mm-hmm. euh, nga xam ne képp kuy ab jullit aljumuhati war na la. waaw mm, bu fekkee nit ki xam nga julli moom mu ngi déparé ci ku masoor euh, téere fiq dañ lay wax nit bu amee juróom-ñaari at nañ koy digal muy julli bu baax muy am fukki at bu lankee bañ ko def nañ ko dóor dóor yoo xam ne du ko gaañ foofu la julli déparé nga xam ne nit buy masoor rek julli àjjuma da koy war su boobaa su boobaa nag euh, kon comme ni ma ko waxee mooy war na képp koo xam ne góor nga baa nga nekk jigéen di mag baa nga nekk koo xam ne wér nga baa nga nekk koo xam ne masoor nga baa nga nekk koo xam ne as gor nga mooy euh, kenn moomu la daal jaayuñu la su boobaa ñooñu daf leen di war euh, contraire ba nag mooy ñim warut mooy képp koo xam ne ab jaam nga julli àjjuma waru la xam nga jàmm moom amatul léegi parce que wax nañu ne 1960 bi ñu amee indépendance ak léegi loi bi moo goreel képp ku fi nekkoon jàmm loolu tax léeg-léeg nga dégg nit ñi di tooñ naan diw jàmm la loolu amatu fi euh, warul soxna su ndaw képp kuy jigéen tey mag julli aju mu war na la waaye nag bu dee soxna soo xam ne bu demee day influencer ñi nga xam ne ñooy julli du ko war. waaw xale euh, comme tey ku am vingt ans wala vingt cinq ans di sëy bu fekkente ne mën ngaa dem ca jàkka ja muuru ba daj ba kenn du la xàmmee da lay war bu fekkee ne nag soo demee euh, loolu mënuloo ko te da ngay influencer ñu fa nekk su boobaa da toog moo gën waaye mag ñi ñoom dañoo war a julli ji. imaam foofu presque nit mën naa ñëw ci àjjuma ji ak nu mu mënti mel mën na julli ba dem. su boobaa julli ci dalay war boo génnee fii àdduna bi yëpp noonu lañ ko organisé place bi góor ñi jullee day am place bi jigéen ñi di jullee day am nga xamante ni duñu gisante su boobaa da leen di war wax nañ ne comme itam wurut xale bu ndaw loolu ñu tuddee aw sabiyun wala nga ne aw marit ku feebar ba munoo dem ñooñu waru leen mu nekk lu am solo imaam comme ni ko waxee warul xale bu ndaw kon nag loolu yaakaar naa jàngal la ci ñi nga xamante ni léegi dem si yenn jumaa yi bi su ma ne ay jumaa yi di gis ne dañuy julli di indaale euh, jumaa euh, mm-hmm. euh, wax nañ ne il faut ñu defee ko ci dëkk dëkk boo xamante ni bii nit ña war a julli àjjuma ña nga fa fokk ñu defee ko ci mbooloo maanaam lu matut ab dëkk du ñu julli àjjuma dëkk boo xam ne amuñu jàkk du ñu julli àjjuma fokk ñu defee ko ci jàkk ja fokk ñooñu nekk ay jullit ba pare gëm yàlla fokk itam julli ga bu ñëwee mu am ab xutba fokk xutba boobu itam ka jiite ca dëkk ba moo koy def maanaam mooy ka faraw xam nga bokk na ci sartu imaam danañ naan laa ab dëkk bu ñu dajee ki war a jiite nit ñi mooy ki gën a mokkal alxuraan ñaareel ba mooy ki gën a dégg fiq troisième position bi moom lañ jox mag xam nga ñun fii Sénégal danga dañoo jàpp ne ku mag rek yaay jiite mm-hmm. waaye déedéet boo amoon téeméeri at gone gu am vingt ans mokkal alxuraan mooy sa imam loolu ci mooy lu ñu tànn la mm-hmm. kii jiite mooy dañ naan dëkk bi nañu seet ki fi gën a mokkal alxuraan di xaafis bu ñëwee bu amoon vingt ans baa mu am dix huit ans mooy imaamu ñëpp bu fa nekkul nag ñu doo a xool ki gën a dégg fiq mm-hmm. mooy jurisprudence comme ni ñuy jaamoo yàlla bu fa koo fa nekkul ñaar ñu nekkul ñu ne kon dëkk bi nañu xool ki fi mag nga xool xool tey kon ku mag troisième position la jël fokk rek ku mokkal alxuraan du fi nekk wala ku dégg fiq du fi nekk su boobaa na nga doog a mën a taxaw nag. mais man foofu doomu nga xam euh, ne li nga bëgg a ni mooy nit xasee mokkal alxuraan am na yoo xam ne doo ko def nit bu alxuraan nekkee sa dënn da ngay moytu yu bari di nga set ba mën a jiite nit ñi des fois nag léeg-léeg nit mokkal alxuraan di jeune xam nga di def yëfu xale nii rek ñu bokkoo kii waaye nit bu xasee mokkal alxuraan du gone kenn Serigne Touba mbooleem ñi mu nekkuloon ay xaafisul quran lañ mu nawloo leen di leen liggéeyloo xam ne ñi ay góor yàlla lañ yu mat sëkk euh, léegi nag la réew mi yàqu ba nga xam ne nit bu masaan mokkal alxuraan lu ñu def génnee la ci dëkk bi sañca la dëkk woo boole la ay dongo ñu lay bayal ab tool nga doonu seex ñu jox la soxna léegi nag bu ñu tollee ci jamono boo xam ne nit ñaa yàqu nga xam ne alalu àdduna rek lañ gëm moo waral tey nga gis ni tey nit mokkal alxuraan eh, lu nekk nekk ci moom waaye kon nga xam ne ñu ngi ci mujjug jamono nañu tànne imaam yaag xam-xam bi ñu wax alxuraan bi nit ñi defatuñ ko da ngay gis dëkk boo xam ne kafa mag moo naan maa fi mag maay jiite <laughs> te waxuma la mokkal mais wàccul xamul ci fiq bi dara ñu wax la ne bokk na ci sart yooyu jàkk ba day am xutba bi day am maanaam eh, ajjuma munta taxaw te xutba amut fokk nit te xutba yi ci araab lañ koy def boo noppee nag bu la neexee nga def ko ci waraf yu firi ko waaye fa force ñu def ko ci arab bu njëkk bi fokk nag comme ni ma ko waxee kii jiite mooy kilifa ga nag buñ xasee ba ne ki jiite am na ñaar fukki at dëkk bi ñu fi nekk am téeméeri at te mokku lañu alxuraan nañ jàpp ne xale boobu mooy seen kilifa ñoom ñëpp mbir mi nekkul ci masamba wala ma demba ci lu ñuy jàng la waaye du am fu ñu koy dëkkal ba pare nag su boobaa nag ñu doog bokk na ci sart ya ñu bàyyi wax ci biir eh, xutba yaag la nga xam ne mooy euh, boo xasee ba agsi ba toog. mu nekk lu am solo imaam ndax mën nañoo xam lim bi nga xamante ni jullit àjjuma foofu la commencé. fukk ak ñaar dañuy wax ne bépp dëkk boo xam ne am nañ mbooloo moo xam ne bu julli jotee war nañoo mën a sax ci gannaaw imaam bi ñu war nañoo mën a taxawal aljumaat. xam nga euh, problème boobu masala boobu posé woon na ci weer yu ñu génne mooy bi nit ñi tëjee jumaa yi mhm. man ñaari masala rek laay jël rek jox leen ko benn yoon Abdoulaye Ibnu Omar moo wax benn ba mhm. ku tëj sa jumaa ngir bañ a julli ji àjjuma ñu ne la looy daw da ragal nga naan feebar bi laa ragal ak ab feebaraam ci dëkk bi ak bu mën a doon nga xam ne eh, ñun ñoo mujj jot ci feebar daal waaye lu ne jaar na fi ci histoire nee na su boobaa boo dee safara nga jëm yow firawna Haamaan ak Abdullah ibnu Xalaf ñoo nekkoon nafiq yi gën a mag ci mag ak Madinatul Munawwara mu ne ku tëj sa jumaa ngir taw bu bari wala ay xeetu feebar yi ngay daw xam nga ñun ñu ngi doog a jot ci feebar yu sa sewaan xam ne jiitu woon na ci histoire ñu koy nettali su boobaa nee na yow boo dee safara nga jëm moo tax euh, ju ci biir trois mois yi ñu gën ma ne ku tëj sa jumaa génn ngi ci diine benn bi Mouhamed Bikri moo ko wax mi ngi ko wax ci téere bu ñu naan fatul muna fi euh, nekk al fiqhul waadi euh, ci daarul muna al kitab wa sunna mu ne ku tëj sa jumaa bañ a julli ci àjjuma amoo lay loo fi man di wax nee na génn nga ci diine l'islam moo tax mois yi ñu génn nee naa ñu bari génn nañ ci diine yëf nag du du du du aw tur waaye ay texte la yu ñu jàng daal alquran sunna wala nga dem toogi waaw moo tax trois mois yi ñu génn ñu bari lenn ci doomu aadama yi ci réew mi dugal nañ leen ci kéefar ñenn ñu dugal leen ci nafeq ñenn ñu génn ci diine te teguñ ko fen nag bu boobaa nag téere yi moom mi ngi fi ñu jàng xam nañ ne moom <laughs> wàcc nga yoon wa daal. macha allah imam mu nekk lu am solo ñu bëgg tamit euh, nga dikkal ñu ci li nga xam ne moom mooy li ngëneeli euh, jullik aljuma. aljuma bis ba moo tedd bis bi moom màgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne bis bi gën ci bis yi mooy bis boo xamante ne bii jant bi fenk na muy bisub aljumaati mu ne bis boobu nga gis ci la ñu bind suñu maam Aadama. kon xam nga màgg na ci bis boobu ci lañu dugal suñu maam aadama aljanna mook awa ci bis ajuma boobu ci lañ ko génnee aljanna gannaaw ba ñu tooñee mu ne nag wala taqumu saha ila fi yowmil jumuati yowmal xiyaam du taxaw lu dul bisub aljumuati lay doon looloo tax nga dégg siira yëpp bind nañ ci bu yow bu àdduna tukki bisub aljumaa lay doon maanaam ca yoor yoor wax ànd ak ngelaw lu lu doy waar looloo tax saa yu xiinee rek di ngelaw góor yàlla yëpp dañuy tiit ñu yor seen kursi di ñaan di jàng di def lu nekk mm-hmm. euh, looloo tax loolu bokk na ci euh, li nga xam ne mooy euh, ngëneelu aljumaati mm-hmm. bokk na ci itam xam naa ngëneel ya ak teggin ya bokk na ci waaw mooy sangu bala ngaa dem sangu aljuma dafa war xam nga waxuñ rek dem sangu nii waaye cangaayal aljuma boo xasee def cangaay bi mm-hmm. doo lekk doo naan cangaayal aljuma dootoo lekk dootoo naan day àndaaleeg njàpp mi itam nga xam ne da koy def rek jubali jàkka ja ñu bëri nag dañoo foog ne moom. waaye sangaay lii rek te jàppoo tamit est que jàppoon tamit boo sangoo rek te jàppoo mën nga mën nga continuer dem. julli ji waaye ci biir cangaay bi day ànd ak mu jàpp bu la neexee itam nga def li nga xam ne mooy nga sangu ba pare doo ko jàpp waaye eh, cangaayul àjjuma ak niñ koy diglee. nit ñi ak nit ñi pratiquer diine lu bëree bëri dafay dafay dafay nekk loo xam ne dafay des bokk na ci euh, ngëneel yooyu ak teggin yi mooy ak tabkiir ilayha qabla duxulil waxti maanaam teel a dem ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam moo wax ne ku sangu bisub al jumuhati cangaayal ba janaba xusulul ba nga daal di jóg dem ci waxtu wi njëkk mooy première heure dafa mel ni yow giléem nga rey maanaam am nga gañaayu giléem ci gàttal tënk mu ne képp koo xam ne dangaa dem ci ñaareelu heure bi deuxième heure bi dangaa mel ni dangaa rey nag am nga nga ku rey nag ku dem ci troisième heure bi dafa mel ni dangaa rey am xar ku dem ci eh, quatrième heure bi mooy ñeenteelu heure bi dangaa mel ni ku rey ginaar ku dem ci juróomeelu heure bi nag daa mel ni am nga gañaayu nen léegi ñetti gañaay yooyu ma xool joxe nag ku nekk yaa xool nag boo ci jël ndax yaa ngi ci gileem lañ déparé ba ci nen moo tax ajjuma ñuy bëgg kuy teel a ñëw yéex a ñëw nag bay am nga nen tey perte giléem yaakaar naa loolu euh, nekk na loo xam ne ñàkk a xam la. Euh, mu nekk lu am solo xam naa Modou Diouf moom mi ñuy dégg xam naa moom moom euh, nga ñaayul gileem li moom moom lay jël waaye du jël nen bi ndax nekk na loo xam ne lu ama am solo imaam ñu bëgg nga dikkal ñu ci kayfiya bi naka la ñuy jullee bisub aljuma. Mhm. balaa ñëw ci benn masala rek ci ci nuñ koy jullee mooy imaam boo xasee teew xam nga aljumaati bokk na ci comme ni ñu ko waxoon nga dem nga sol yére yu set yu weex waxuñ nag nu mel baax waaye na set ba pare na weex boo ñëwee bul jéggi kenn. te am na ci digle sax ay parfum ak ay yooyu. waaw yooyu yëpp bul jéggi kenn toog bu imaam bi xasee toog dañ ne malaayka yi ñëw ngi ñëw di digloo ñi nga xam ne dañuy sikkar di tudd yàlla xam nga ci àjjuma lañu wax ne da cee am waxtu woo xam ne yàlla nee na lu ci waay ñaan mu may la ko waaye nag heure ba lañ xamut ñii nee nañ heure bi imaam bi xutba la. yéen téere fiq yi nee nañ ginnaaw euh, balaa ñuy julli takkusaan la ñii ne zézéer la ñii ne daal mi ngi nekk ci euh, bay na euh, ci ci ci jalsatul ula maanaam bu imaam bi xutbaa ba toogaat bay jugaat ci diggante boobu jël sa xafiifa bi muy def loolu ay ay ay tegtal lañ ci joxe gis nga àjjuma boo demee ci jumaa yi li lay xamal ne ndeysaan nit ñi ni ñu ñàkkee diine da ngay dégg imaam di xutba naan ayuhan naas bu xabla an tamutu ñu tàllal loxo yi naan amin <laughs> tuub leen bala ngeen a faatu. Mhm. comme ma ne ay waay tuub leen bala ngeen a faatu. Mhm. loolu amin la la noonu la ñàkk yëpp nag foo waroon ni dem ñàkk xam rek euh, foofu bu bu defee première xutba bi ba toog jal sa istiraa yi lañ ko tuddee mooy day toog pour noppal waxuñ kenn nga di fi ñaan wala imaam day ñaan ñu tàllal suñu loxo. bu jugaatee ñu koy duglu xutba lu am solo la defe naa moom la ñuy mujjee ñu wax ne sib nañ kon jéggi ak teqale sàpp yi nit ñi toog nga di leen nga di kii nit sax dañ ne buy wax nga ne ko e yàq nga sa juma mun xasee nodd nga doon wax ma ne la soxna si noppil man sama ajjuma yàq naa ko. kon nag euh, imaam foofu tamit nga xaw fi leeral tuuti parce que bu ñu nemmee ko ci yenn euh, juma yi surtout ay jumaa yi Touba wala yeneen jumaa yi da ngay gis bu fekkee da ngay dem di julli aljuma am ñoo xam ne dañ leen a teg pour ñu wàllu organisation bi nit euh, moo xam moment bi nga xam ne dañ doon du ñuy noppaloo askan bi ak yooyu loolu tamit yan leeral nga. si nga réew mi moom ñaari ñoo mooy dal mooy ak ceddo dafay bari jàkka yi moom boo bëggee gisu riir dem fa ak riir ak jaahiliya demal ci jàkka Sénégal yi ñu nekk ndax euh, xam nga bu ñu demee rek ba imam bay jiite jàngut moom maanaam nit di jiite ba pare jàngoo rek yàquti mënul passé loolu euh, xamoo lan mooy sarti li nga xam ne muy julli la ca war jëlal lax dar yu bi rek fi ne réew mi ñu nekk di Sénégal boo jëloon lax dar yu nga ciy testé waa réew mi nii ci la euh, ci xabla salaam nee na quatre-vingt pour cent yi ci ay imam nii tey dinañ téere bi tuuti na waaye dégg ko jafe na diine ji dañ koo jëlut ngir teg ko ci ay texte mais dañ ko bëgg a jël teg ko ci ay tuure ki sam maanaam da nga jàppoon dañ koo sangoo waaye naanuñu ko léegi nag euh, ñàkk xam jumaa jumaa ku fay wax da ngaa xamut ku fay lañ may mu di fa wax mooy mooy ki nga xam ne mooy euh, mooy imam bi bilaal bi nodd ko digal ku dikk toogal boo dikkee da ngay gis ku ne rëy rëylu ku ne yëkkati mbubb ku ne def ne ku nekk di wax léegi bokk na ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon di leen bëri lu ngeen di ci man ci bisub aljumaati ndax nee na soo ko defee man man dinaa ko seede te seede gi ma ko seede bu ëllëgee yow mal xiyaam dama lay tabal aljanna mu dellu waxaat ne bokk na ci sart yi nga xam ne moo koy wéral comme ni ñu ko doon waxee mooy force mu nekk euh, comme ni ñu la ko waxoon dëkk ba mat ba baat lépp mat ndax da nga gis ñoo xam dañu am jafe-jafe xutba <laughs> dañuy dañuy ñëw rek taqale ko dem ba yow am na ci Sénégal bërëb yoo xam boo fa julli woon dootoo fa jullewaat ndax da naan kii lu muy wax te lu am solo la. julli googu it boo ñëwee fekk ñu imaam ji jeexal benn rakka ba des deuxième rakka bi. deuxième rakka bi nga dab bu solmale da ngay mottale benn bi boobaa mel na ni fekk nga julli gi waaye nag boo fekkee ñaari rakka yi bu jeex su solmale tisbaar ngay julli dégg nga bu baax léegi nag su ko defee kon nga wax ne nan mooy kayfeye bi comme nuñ koy nuñ koy jullee bokk na ci ah, nuñ koy jullee mooy imaam day génn ci gannaaw sawaal mooy heure bi yéeg ci minbar bi nuyu nit ñi asalaamaaleykum digal bilaal bi mu daal di jóg mu daal di nodd bu noddee ba pare imaam daal taxaw taxaw xutba nit ñi xutba boo xam ne gannaaw mi ngi koy ubbee ci gannaaw bu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di waar nit ñi nag bi leen fàttali muy boole di digle ak a tere yooyu ci arab lay doon soo paree nag bu la neexee nga firi ko ci alof wala nga bàyyi. xutba ba mu nekk lu am solo sax boo gisee xutba bi lay lekk juma imaam gi di xutba mais nit ñi sax duñ bàyyi xel ne kii xutba lay def. ko xam la moo tax ma ne léeg-léeg da ngay gis àjjuma yoo xam ne daanaka ñàkk faa julli moom moo gën sax di julli ndax da dem am di xam nga réew mii moom lépp dañ koo teg dañ koo teg mi léegi ci di ci ak sàmm mbayaan ak ak ceddo diine nag boo ko xasee réere da làmbatu rek léegi nag euh, mu waar nit ñi dangay ngay boole di di di waare maanaam di tiitalaate ak di xëbale di di di di xuppaate ay yàlla wax di bégale nga di ko tegal nit ñi yi muy xuppee nit ñi pour ëllëg pour safara nga di ko teg booy booy xutba bayit dañuy bëgg nga yëkkati sa kaddu ca kaw ayuha naas parce que xam nga kaddu yàlla dafa war a yëkkati tuubu xabla an tamutu maanaam dafa war a dal comme yonent bi ni mu ko daan mm. fii da gis koo xam ne buy xutba da naan kii man da nga tourné gauche ak droite ndax da nga ko dégg wala doo ko muy wax ndànk maanaam mel ni ko amul làmmiñ te dañ ne la xutba bi da ngay mel ni ku yuuxu ca kaw ndax alxuraan ngay wax ak addis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk message fort boo xam ne bu ko nit ki déggee rek da koy jëfe mu dugg ci xolam waaye new ay alxuraan yi sa tudd ko da lay jafe addis yi waxaale wuñ ko yooyu yëpp day day doy waar léegi na ngay diglee di tere jeexalee ko ci nag li nga xam ne mooy tere suñu borom yi mooy mujj ngay xemmam loo nit ñi aljanna di leen tiitloo nag ci li nga xam ne li leen di xaar safar ëllëg ñaar yooyu ngay composé su ko defee nag di indi tëkku yi ba mu yàgg na nga daal di toog def jël sa isturant yi boobu ma la wax da ngay gis nag bu nit ki toogee rek nit ñaa nga tàllal amin ba jàkk jëy riir ma ne ay waay fii du bëri bu ñaan kenn ñaan loo fi kenn imam bi sax day bu fekkoon fu du fuñu làq da ngay gis ne day toog rek noppalu waaye imam bi it du ko wax léegi ñu bëri Sénégal da ngay wax ne euh, imaam daa toog di noppalu rek waaye ñoom loolu lañ ko kii kon daal si buñ déggee jëw côté bi nga waxee mooy jot na imaam bi tamit di gën a leeral ci wàllu bu fekkee dañuy xutba am ñu bëri sama genre gi xam ne jànguñu xamuñu di tàll seeni loxo di ñaan jot na imaam bi tamit di ko leeralaale askan bi nga xam ne ñu leen di bàyyi xel xam nga ñun Sénégal bi fi diine ji ñëwee ba léegi bu fekkee li li jumaa yi wax lépp nit ñi dégguñ waaruwuñ jëratu ko ñaat 365 jours ñu fi julli ay ajjuma nit ñi dégguñu ba léegi ñu ngi toll ci lu ñu fi war a def lu ñu ko war a def jaratu ko ku yebbu ba leen ndax léeg-léeg nit day tànn ak njaay àll maanaam jaayilee day gënal nit ki mu xam mais nag fa zakir fa inna zikra tanfaul beneen bi mooy ci jamono bi imaam di xutba wala laata muy xutba jumaa bi bu imaam xasee euh, xutba dañ ne la bépp sàppe bu mën di doon da ngay jàkkaarloo ak imaam ba mu des sàppe bu njëkk bi loolu it sew-sew la wastaqbalahu gayru safil awal ci xalil maanaam tey bu fekkoon sàpp yi daa départ fii ba marché Ocass wala fii ba gannaaw jumaa ja fu waay mën a nekk dañ laa wax ne même bu fekkonte ne imaam damaa faree ginnaaw da ngay tourné ba jàkkaarloo ak imaam bi def nii toog di ko xool loolu bokkut ak julli gi bu sëlmalee na nga doog waat sa bopp sàppi bu njëkk bi xam nga dañoo sës ci imaam ñoom pour ñu tourné teen day métti loolu tax ñooñu rek lañ ko tere ndax mënoo imaam bi tiim la nii di ba nga wëlbatiku téen téentim ko dañ ne la ni nga toogee man ko toog waaye ku sàppe bu njëkk bi dañ ne la foo mën a toog fii bu doon 2 kilomètres 3 nga wanee ginnaaw sax da ngay tourné fa imam ba nekk nga jublu fa di diglu da ngay gis ñoo xam ne bu ñuy xutba dañuy jàng baa nga yor sa kuris di virde lépp dañ naan laa teg ko nga diglu li waa jiy wax ndax day waaraate message fort boo xam ne message suñu borom la su boobaa nag su ko defee noonu lay defee yëkkati ca kaw kàddoom bu ko defee bu ga ñaareelu xutba bi mu nekk loo xam ne bu mu gàtt bu gudd day gàtt da ngay gis koo xam ne day xutba rek di bañ a dem bañ a taxaw naaj bi tàng muy wax di dem rek léeg-léeg sax wax ji du am fu mu commencé du am fu mu yem maanaam amul bopp amul genn loolu daa bari ci jàkka yi xanaa xamoo ne bu ñu doon recensé ci biir Sénégal ci jàkka yi daanaka da naan ñii moom diine lan la ñu yoree ngir ceddo goo xam ne moo leen mu nekk lu am solo kon daal yow bu ñu la déggee tamit euh, nga jàllale wàll benn message ci imam yi ci naka lañ war a gën a yokkewaat seen taxawaay waaye tamit ci xam-xam bi nga xam ne war nañ koo servir askan bi <laughs> Euh, yàlla moo wax ci alquran ne wa jaxalnaahum aimmatan yaaduuna bi amrina imaam ñun yàlla ñoo ko tànnal suñu bopp du askan wee tànn baa nit ñi imaam mooy kilifa ñëpp ci kaw suuf boo xasee nekk imaam kuy doomu aadama yaay seefam yàlla moo la tànn moo la fal du ay mbindeef ñoo la fal de ci sart nag lañ la faye mooy gannaaw ba nga xamee alxuraan euh, maq baqara ba naasi Euh, man ko tafsir man ko bind too ko xool xàmmee lépp jàng charia ba xam ko euh, ba nga xamante ni bi diine ci dañ ko ci réer imaam nga même boo jiituwut ab jàkk sax imaam nga kon daal imaam nga ci même bu dul jàkk ji sax koñ bi nga dëkk sax war nga cee gën a yokkaat sa présentation xam leen xam leen ne man maa imaam bi loolu bu xasee nekk ci doomu adama bi da ngaa nekk kilifa diine goo xam ne diine li ñu cee def di dindi maanaam ni ñuy caxat-caxatee constitution Sénégal ci gàttal yow noonu amee ci diine ji di ci def di dindi. mu mel ni imaam daanaka suñu waxtu lu ci des bareetul imaam dañoo nemmeeku ne comme ni nga ko waxee si jullit àjjuma gi daanaka mën nañ ne góor ñu bëri rawatina ci jeunesse bi ci la gën a bare ñoo xam ne xam nga ne jullit àjjuma war na leen waaye defuñ ko seen xol defuñ ko seen xel en même temps dafay mel ni parents yi daf leen dañ leen ciy seetaan lu est-ce que loolu tamit jotul ñu gën cee waxaat pour nit ñi gën a xam jullit àjjuma ak njariñ yi ci nekk rawatina ngëneel yi. waaw soo demee xam nga dañuy wax ne euh, ku toog ñetti àjjuma julli ji woo ko jël nañ sa tur bind ko ci diiwaanu nafiq yi te dootu far bépp doomu aadama moo tax léeg-léeg nga gis ku tardé ñaar naan wuu tey du ko tardé ndax damaa tardé ñaar fokk ñetti du mat ku toog ñetti ajjuma julli ji woo ak koo mën a doon sa tur du bind nañ ko ci listub nafiq yi te dootu effacé wu ba faw moo tax julli ajjuma am solo moo tax bu ñu naan ay nañ toog tëj jàkka yeeg bu ñu julli ajjuma ak yooyu da ngay xam ne dañ ne la daa am loo xam ne sa diine sa bakkan dala koy jaral bu la ko sa bakkan jaralul julli gi ngay woote nekku fi saxaaba yi dañ da koo jaraloon ñu ànd kook yonent bi alayhi salaam yonent bi da daan toog ñuy xeex ba mu yàgg nii ñu taxaw serkal ñenn ñi ñuy julli ñenn ñi di leen garde <laughs> ñun nag ñun moom kenn garde wu dara xew mu jaral la tëdd sa kër dañoo bëgg diine ji yomb daal l'islam ji itam dañ koo foyee jàngaluñ ko nit ñi moo tax xamuñu importance wu julli li ci nekk euh, dañ ne julli jànk julli moom ñaar rekk la kuy julli ñu ne jullin nga ku julliwut ñu génnee la ci ne bokkatoo ci daal ñu war a nàmpatal nit ñi bu baax a baax ci li nga xam ne mooy diine macha allah imam mu nekk lu am solo imam sa kàddu yi mujj ak lan ngay euh, tàggoog ñi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel si biir 24 actu waaw euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ne zayati alin nas samaan nee na jamono ñu joo xam ne nee na l'islam bi laa yabqa min al islam ila ismuhu mu ne l'islam daal tur wi rek a fi nekk nit ñi naan diine waaye duñ gëm dara mu ne um seen jàkka yi dina fees dellaki doomi aadama waaye seen xol yi dara du ci nekk iñaan nag lu jekku ku jekku yi fii sa moroom jël ko jàkk yi mun naa fees tool mais nit ñi ragaluñ yàlla leen yooyu yëpp nag yooyu ne alxuraan jii ngeen di gis nit ñi danañ ko jàng waaye sirru bi ak barke bi yàlla da koy yóbbu dara du fi des fii ñaata kaamil ngay gis ñu koy wàccee ci ci ci événement yi da nga toog yaa nga waaye junni kaamil yi may dégg ñu koy wàccee moom anamu léegi nag su ko defee ñu ñaan yàlla rek yàlla may ñu kattan ak wér bañ gën a dégg diine ji gën koo gëstuwaat émission bi nga tuddee gëstu diine dafa am solo gëstu diine dafa nekk mas masala yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne nit ki da ko war a xam su ko defee bu boobaa diine boo ko xasee xam rek doo réer doo tiit doo jàq dara du la jaaxal ku réere diine nag ku nekk mën na laa manipuler te diine ku ne ci yow kenn du la digal ngay def kenn du la tere ngay bàyyi da ngay digle di tere waaye diine ne ci yow ngay diglu ndigalu keneen su boobaa xamoo sa bopp kon yal na eh, gëstu diine bi ak site bi de 24 actu dem ba nekk ay télévision yu mag a mag a mag yow mi koy animé kazalika bu dem ba mel ni BBC sax ak Al ak sëñ Modou Diouf mi nga xam ne moom moo nekk grand technicien bi moom itam bokk ci grand technicien yi gën a mag ci àdduna bi ndax xam-xam li muy def nii xam-xam bu ko gën a jafe amul ci kaw suuf te mooy technique kon yàlla na yàlla kàttanal leen dëgëral leen yéen waa 24actu ba li ngeen bëgg ci lislaam ngeen am ko ak jàmm ci nga xamante ni jàllale na ko waaye tamit ni ko waxee Imam Cheikh Sall di président de l' association des imams et arabisants de Touba mu nekk loo xamante ni jotaay bu ama am solo la comme li ñu leen ko waxee woon ci bopp bi li nga xam ne moom mooy gëstu diine ji tey nag thème bi nekkoon salaatul jumaa lan mooy jullik aljuma ak lan mooy sàtt yi yeeg lépp mën nañ ne faram-fàcce nañ ko tey jàpp naa ne ñi nga xamante ni jullit àjjuma am na ci yu bëri yoo xam ne réeroon na leen ci tey defe naa ne dinañ ci gindeeku ngir uh, suñu gan gi di imam uh, Cheikh Sall ñu nga xam ne yéen a ñuy safoo ak di ñu ndamoo saa su nekk rek ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm waaye tamit di leen wax bu leen di fàtte di abonné suñu site bi di 24 actu yi di jaajëfal bu baax suñu caméraman bi nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo di Modou Diouf mën ñoo gis moom la waaye itam di jaajëfal seex mi nga xam ne moom mooy jàpp ci montage bi ba mu mën a yemm di leen jox dig daje ci beneen émission gëstu diina ji ak beneen invité rawatina beneen thème mbokk yi jërë ngeen jëf alhamdulillahi alkarim silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan